mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi safoo seetaan Senego TV comme tey ñoo ngi am suñu entretien exclusif ak ki nga xam ne moo nekk Cheikh Thiam nekk coordonnateur wala président mouvement Ma Réew monsieur Thiam ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo bi di la fay. di rafetlu sa fii ci sama place bi. jaaroon nañ fi il mais tey ñu ñëwaat en tant que tey coordonnateur wala président bu mu mouvement Ma Réew euh, ci ci ci tënk rek lan nga ñu mën a tënkal ci idée. ma réew ak lan moo nekk ma réew. waaw ah, Seydina posé nga question boo xam ne mooy réponse bi gàtt nga xam naa dama ci ñam tuuti rek li ñu def ñu bàyyi ko defal ko émission boppam euh, ma réew mouvement la boo xam ni mouvement citoyen la euh, ñu tracé ko mu nekk troisième voie bu ñu bëgg a teg ci réew mi di loo xam ni mësul am ci réew mi ci histoire Sénégal troisième voie bi su ma ko waxee mooy voie wu dëgg fexe ba sénégalais yi kenn ku nekk ci biir mënti nekk nga jot sa àq ak say yelleef ci biir réew mi loolu dëgg rek moo ko mën def ci réew mi dëgg dëggu doogu mooy mëneew 3D bi ngay dégg mëneew nag baatu wolof mais wolofu lébu la li tax ma référé wu ci wolofu lébu lébu dafa nekk une communauté boo xam ne dafa soudé ba pare am benn diversité ba pare seen métier collé ak seen état lébu rek sa xel day dem ci métier soo nee métier rek sa xel day dem ci mu yomb ba pare Sénégal ñu koy symboliser gaal nga xam ni mooy symbole suñu réew gaal dafa yàlla dafa dogal nag boo toggee ci gaal ñu bari ci gaal gi joow joow joow gaal gi demul bu ñu jógee rek dal ci ki jiite gaal gi booba ak naa fekk dañuy dugal dañoo war a xool kenn ku nekk ci ñun ci biir gaal gi fi nga toog ci gaal gi ëmb bi nga yor ci biir gaal gi li ci nekk di diisal gaal gi te amulul njariñ gaal gi nga dindi ko sànni su ko defee suñu gaal gi dem fi mu jëm loolu moo dal suñu réew joow na njoow demul ñu tënk ci ñu jëlee ko idéologie bi foofu la jógee nag moo bi muy loolu te lébu yi nekk ñu dëggu ñuy dogu di dëggal mooy waral ñuy indi mbàllaaw ci tefes maanaam ak harmonie bi mu àndal daal fulla ak daal jon ak ngor ak bañ looy bañ lébu ci seen biir am na géwël am na géer am na séeréer am na pël lébu ci seen biir am na chrétien am na musulman am na ceddo am na kémique am na animiste lébu ci seen biir am na tailleur am na ministre am na am na am na maanaam diversité boobu noonu nekk ci seen biir moo war a ñu composer mouvement ma réew muy mouvement bi nga xam ni sénégalais yépp lañu soxla képp ku nekk ci biir réew mi ak bitim réew di sénégalais te xam ne suñu réew mi am na lu mu manqué te am na lu ko yàlla jagleel pour mu war a mel ni yéen réew yu baax yi te li mu manqué lenn képp la mooy dëgg ak fulla ak fayda ma mëréew mi ngi lay tàllal loxo pour nga ñëw rejoindre ñu booloo am doole mën a foqati suñu réew mi ci loxo yi tappalekat yi. ñaata membre la mooy mébétu mouvement mëréew. ñaata membre la mëréew tollu gannaaw lancement bi. ndax am nga satisfaction am nga ci yaakaar que ne Marème mouvement buy dem la. waa ji gëm naa ne luy dem la ndax dans l'histoire du Sénégal mooy seul mouvement boo xam bi mu juddoo léegi lu ñetti weer. mais li nga xam ne enregistré nañ ko ci ay nit ñu bokk daanaka mat nañu huit mille personnes yoo xam ne bind nañu leen ci suñu registre. <laughs> mais mënaguñu officialiser parce que am na ñoo xam ni peut-être à partir de sa émission bi ci la ñuy amee lu leen rassurer ci man lu leen convaincre pour ñu rejoindre ñooñu ay ma la ñu woon ndonte bindaguñu leen donc comme jotaguñu suñu récépissé dañuy xaar ba jot ko officialiser ko danañ organiser rentrée wu mouvement Maréew dans euh, Maréew dans la dans la scène politique du de notre pays fii ci New York lañ koy defee incha allah mois d' avril bii di ñëw ñu ngi ciy liggéey. donc sénégalais yi nañu xaar tax xam ni lu bees tàq juddu na loo xam ni sénégalais yépp ko moom yi nekk ci àdduna bi te bëgg réew mi. amuñu am messie nous ne sommes de chercher un messie amul njiit yow Seydina Maréew nga. képp kuy sénégalais foo mënti nekk ci àdduna bi bëgg réew mi dem surtout ñi nga xam ne bëggal luñ dara Sénégal mën nañ seen bokk ci àdduna bi mais bëgg nañu Sénégal dootul ñàkk dara te xam nañu ni Sénégal bu ñu góor góorgóorloo wuruñoo ñàkk dara ñooñu nga xam ni dañoo réticent woon découragé ci arène politique bu Sénégal parce que ay nar ak i tappale moo fa nekk Marème judd na pour dindi loolu yépp lépp luy ay nar ak i tappale luy ëkk guy tee Sénégal ak foo mënti bokk bu jógee ci diine dañ koy dindi bu jógee ci aada dañ koy dindi bu jógee ci waasu wu mënti doon bu jogee ci murit xaadir tijaan fu mu mënti jógee danañ ko déjjati pour suñu réew mi jëm ca kanam loolu moom mooy idéologie ma réew ndax ma réew day ndax bu demee ba jug ba ba nga lancé ko da ngay dem adhéré wu xool ñoo bokk ak doxalin nga dem euh, ànd ak ñoom lënkoo pour liggéey wala da ngay jël sa yoonu bopp comme ni ko ñeneen ñi defee déedéet du man aw moo yoon man dafa am loo xam ne yàlla daf ma koo teg muy am nattu di benn mission bu ma engagé wu. muy sama digganteeg sama réew. Mhm. man damaa judd Sénégal defaluma dara. Sénégal laa juddoo yaroo fa màggee fa defaluma dara ma génn àll bi defar ma te ni ma àll bi defaree Sénégal mënoon na ma ko defar noonu mais li tax Sénégal defaruma ak ëkk la goo xam ne ay nit ñoo fa installé seen ay idéologie que ça soit muy politique wala religieux ñuy séddoo li ëpp ci askan bi ñun ñi ñuy séddoo nag naawtal ñu ñun ñoo nekk ci bitim réew. di nekk fii comme ni ñu koy defee di nekk ci atelier wala ñuy nekk ci mbedd mi di ci tali bi di taxi wala ñuy fanaan ci ay restaurant wala ñuy nekk ci ay salon coiffure ñoom ñu toog fële. Mhm. di dundu seen jàmm bàyyi ñu ñu nekk ci àll bi loolu il faut que mu jeex. loolu moo waral idéologie bi génn bi mu génnee ci man ma wax ko sénégalais yu daw ñëw agroupé wu ci mu nekk une majorité silencieuse c'est-à-dire li sénégalais yi bari di xalaat ci suuf man loolu laay wax ci kaw. li Sénégalais yi ëpp di xalaat ci suuf moom laay wax ci kaw. moo waral ñoom ñu génnandoo ñëw en masse looloo waral ñu organiser mouvement bi mais man jiitewuma kenn. ñun ñoo bëgg a jiitu ñun ñi nga xam ni li ëpp ci askan bi ñun lañu daan dundee ci juróom-ñett fukki ak yi passé il est temps que ñu jël nag suñu wàll fas yéene jiite may profité ci occasion bi di laaj fii nga ma fekk nii sama métier mi nga xam ni lu ma am ci àdduna moo ma ko jox fu ma àgg moo ma fa àggal ñaan ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ci secteur industriel. secteur informel les artisans ñun ñi xam ne dañ ñoo excluroon ci développement wala discours politique de notre pays mooy tailleur di maçon di menuisier métallique fondeur mécanicien électricien caméraman journaliste chroniqueur képp koo xam ni ci secteur informel nga nekkoon ñu nax la la yow amoo kàddu ci réew mi ci wàllu politique nax nañ la parce que lii defar Sénégal bii di ñëw ñun duñu ci ndoxum kese ak si yoo si si si yoo mhm. ak suuf lañ ci bu mat sëkk te ñun les hommes de métier ñun ñoo génne idéologie bi kon maa ngi ñaan ñëpp ñu ñëw rejoindre mouvement bi mhm. Seydina ngay def analyse yu am yu am solo euh, ci sa page Facebook ba comme comme ni nga solo nii teg euh, sa centimètre ci sa kaw def analyse yu solo ndax analyse yooyu yaa ngi ciy jot ay feedback yu positif wala yu négatif du ma du du jeex mais bala ma tontu ci loolu damay ñëw ci ni ma solo nii mhm. Sénégal dafa am ay professionnels de de de de ñuy accuser ay doomu aadama ci lépp loo am ci xel ak xalaat ak yéene bu baax ci réew mi boo ñëwee day am ay professionnels yoo xam ne dañ fa nekk rek pour dajj la maanaam du ñu créer du ñu innover du ñu wax xalaat lu jëmale Sénégal kanam mais boo ko amee yow boo ñëwee dañuy jëm a dajj te dajj gi ñu njëkk a dajjee mooy demal liggéey demal liggéey te bàyyi wax demal liggéey te bàyyi wax loolu la Sénégal yi buy wedde wala buy yi wala bu iñaan wala bu soxla bi njëkk a jiite loolu man dama koo dindi sama diggante ak Sénégal yi ndax sama maître bi moo ko wane. Mhm. sama maître bi ak sama machine bi ma toog moo waral loolu kenn du ma ko wax ci àdduna. Mhm. te maa ngi ci réew moo xam ne mooy réew mi gën a développé ci monde bi man naa fay dund ba dee du am problème man ak sama njaboot. Mhm. waaye Sénégal dama jur bokk ci réew yi yàlla beral loxo teg ko loxo ñu am fu ñu jëm muy histoire de gaz ñu war a xam ni bu ñu utiliser suñu ay xel yee Sénégalais yi ba ñu nangu li ñu li ñu leen nanguloon ñu nangu ko teewaatam ko seen bopp muy seeni xel danañ mën a développer suñu réew mi pour sën sën yi di ñëw. Sénégal nag nekk fa nekk xar bañ a xam moo gën a yomb fuuf nga nekk fa nekk nit xam ak sénégalais foo mën ci nekk loolu moo ma dal nag moo tax une obligation de parler s'impose à moi. bi may nelaw kenn xaw ma woon bi may yeewoo commencé wax lañ ma xam. Mhm. donc li nga xam ne yàlla jox na ma ko muy xel muy nag ci may xalaat ak làmmiñ wu tekkeeku lu ma wax mu dugg ci xelu nit ñi macha allah. Mhm. loolu danaa ci liggéey sama réew ba fu mu yem neex. Mhm. ci lo. li nga laaj. ndax dina am ay feedback moo waral mouvement ba réew. mouvement ma réew nee naa la ay junniy doomu aadama yi ñu enregistré déjà ci registre ñu ngi déggante ñun ñëpp te ñëpp ñi ci ëpp xaw ma leen bokkuma ak ñoom lenn. Mm-hmm. xaw ma leen xamuñu ma ci internet bi képp la ñu ma gisee moo tax ma ne la nous sommes une majorité. Mm-hmm. silencieuse te gëm naa ni. ak sa émission bi dina yokk loo xam ne dina am benn pas bu mu war a mën a indi ci li war a yi su suqali réew mi ëllëg. Mhm. Mhm. Euh, ci loolu ci feedback yooyu des fois nit dana dugg commentaire ne da nga contre dafa am benn mission booy dox pour contrôler tarixa comme sëriñ yi liy am di laaj addiye genre mais noonu est-ce que loolu looy dëggal la. non loolu lu may dëggal la lu ma xeex la xam nga sax dama ne woon du ma ci waxati parce que dama cee tolloon wax ko ci mbirum tarixa yi li ñu yàq ci réew mi. dama cee war a wax li ma ci wax bi ma ci weesoo weesu naa ko pare naa ci dama caa jóg ba set ca wecc mhm. man Touba laa juddoo yaroo fa màgge fa di murid loolu sëñ Touba gaw ko su ma nee mhm. sëñ Touba mooy Alaaji Malik mhm. mooy Buukanta mooy Limaamu Laay Cheikh Ibrahima Mawla Niass ñooñu ils étaient des moi je dama leen di considérer les plus grands ingénieurs de l'histoire humanité mais dañu créer ay Ferrari yi muy tarix yi bàyyee ñu ko ñun ñu du wàccee dugg dawal dem fu sori ñu nekk fa rek di accéléré murid yi di accéléré tijaan yi di accéléré kenn ku ne naan maa gën a neex moteur rek ni muy ronfale fii moo dàq man lool laa bëgg ñu jóg aw ma problème ak tarixa yi damaa am problème ak ñi doonu tarixa yi nga xam ni dañuy dañuy complot ak politique yi di ñu dundee léegi nag dafa am lu ganes yi lu mhm. bees moo waral sama changement de paradigme ak discours mhm. sénégalais yi il faut ñu am ku ñu topp ci wàllu religion. Mhm. ndax au lieu d'être des vrais musulmans nous sommes de la religion musulmane. Mhm. Mhm. c'est ça le Sénégal. moo tax ala kulli al dina am fu ñu référé wu ci ay group faay bi am ci diggante tarixa ak politique yi dafa am ñu ci bëgg a proxul bëgg jël nit ñi yóbbu leen ci beneen idéologie spirituelle dans une cadre dans le cadre de spiritualité boo xam ne mën na taal suñu réew. muy nag muy analyse bu ma def mu nekk lu forox. ak lu medd muy diggante axlu sunna ak axlu kaso mm-hmm. ndax nit ñi boo leen jëlee ci tarixa tamit ci ay affaire su axlu sunna lañ leen jëmee ci ay wahhabisme ak yu bon mm-hmm. lu kenn xamul fu mu mm-hmm. jógee léegi nag moo tax ma jël décision ni man kat comme sam sama réew tarixa bi moom saf na fa ba pare nañ leen jéem a joyanti alaa kulli al nit ñi dina am fu ñu référé wu donc nañ leen jéem a joyanti ñu xool nan la ñuy fexee ba tappale yi ci nekk jóg ci ndax ñi fi nekkoon mag ñi ko créé du loolu moom moo leen taxoon a mhm. ma ci doon te loolu moom dañ naa ci ba set ci wecc ndax mhm. ma lu ma ciy regretté parce que amul lu ci nit mën a dindi mhm. léegi nag mbir moom bu fekkee da nga ko bëgg wax pour defar du fi nga toog rek ngay toog rek di classe di sànni ay briques déedéet da ngay xool nooy impliqué wu ci mbir mi pour mu defaru te nag damaa ñor nag fi Sénégal damaa ndax taxawaayu yenn guide religieux yi ngi koy rafetlu am na ñoo xam ni fa leen seen maam yi bàyyi woon bu ñu ñëwee mm-hmm. bu ñëwaatoon du ñu changé seen tox doxalin lu toll ni tarfatal lay ni mm-hmm. am na ci seen biir ay entrepreneur am ay chef d' entreprise mm-hmm. am ñoo xam ne ñu ngi jàppale jàmm ñi ci wàllu koom-koom bokk ci ñi xalaatal adduna bi ñu muy doxee am ci seen biir ñoo xam ne ñu ngi toog di jàngal nit ñi alxuraan ak sunna am ci ñoo xam ne ñu ngi toog di jàngal nit ñi gor ak maandu jub jubal. waaye ñooñu ba tey gisuñu seen bopp ci dividende yi nekk ci réew mi. parce que ña ca kaw nga xam ne ñoom ñooy porté flambeau tarixa yi. Hmm. daanaka ñooñu maanaam ñi gën a ñàkk njariñ ci tarixa yi lañu. te ñoom ñooy bénéficié ñoo ñoom état mooy complot bi dafa law ba am fu mu laal fu yaatu loolu yëpp lañ bëgg a dagg ca xren la hmm. waaw nit ñi yem ci réew mi. Hmm. loolu laa gëm. ndax aussi yow jàpp nga ne yenn ci euh, guide religieux wala xalif yi wala ñëpp rek képp kuy kilifa est-ce que ñoo ngi jot feedback bu war information yu war a am ci biir réew mi est-ce que ñoo ngi koy am. déedéet amuñu ko. Mm-hmm. dama ko wax ma ne ab xalif général. Mm-hmm. man xam nga ab xalif général. Mm-hmm. ci tarixa bu mënti doon biir Sénégal du wax ma ciy teg baat. bu waxee dinaa ci am sama opinion parce que réew mi man délégué wu ma sama réew mi. avenir u samay doom ci réew mi kenn. rawatina ku am juróom-ñaar ak juróom-ñett fukki at. yow dañ lay jàpp en otage dugal la ci néeg jox la kaamil ne la da ngaa war a jàng wala ngay wér de xamoo li xew ci réew mi doo seetaan télé doo déglu rajo kooku mën xam ni xaw ci société bi ñun ñëpp ay nit lañ mhm. ñoom nag ñooy suñu ay référence man mhm. sëriñ Mountakha Mbacké mooy sama sëriñ Touba ci kaw suuf mhm. waaye sama dund su nekkoon ne jàg na ci moom ni mu nekk sëriñ Touba ci kaw suuf du ma ñëw Amérique mais ñàkk a jag moo tax li ma xalaat ci société bi dama koy wax dama koy wax ñoom société information yi am bi askan bi di dund xamuñu ko waxuñu leen ko loolu yëpp ci ay njumte la mooy ni tarixa yi taxawee la waaye lu mu mënti metti mooy li ma la wax rek diggante tarixa yi ak lu sunna lu forox la ak lu medd lu forox moom mënees na koo tàngal lekk. boo amul pexe mais lu medd moom day rey. waaw ñii dañoo lor réew mi ñii bëgg a ñëw lakk réew mi loolu mënu ne. moo tax il faut ñu am benn camp ñu far. Mhm. waaw te man ab murid la. Mhm. taxawaay boobu murit nga euh, te foo taxaw yaa ngi koy dëggal que ne murit nga jamono ji gis nañ euh, ki nga xam ne moo nekk Ousmane Sonko moom tamit di sa mbokku taalibe murit euh, def benn meeting bi am Kër Massar wax fa ne moom léegi ak situation réew mi fu mu toll ci wàllum politique ndax li amoon mars gannaaw ba délégation boo xam ne kilifa diine yu ñoo ko yónnee woon pour ñu régler mbir mi déglu camp bi féetee waa M2D euh, luy seen naxar déglu beneen camp bi dajale lépp waxtaan ne danañ regle mbir mi ba coow du am booba tey moom kilifa gi Ousmane Sonko jotul benn benn feedback mu taxaw ci meeting wax ne du demaat ci benn kilifa diine di ko wax. Euh, euh, waxu Ousmane Sonko boobu nan nga ko gisee ndax fi ko teg dëgg la gannaaw bañ koo diggee que ne dinañ waxtaan ak li waral coow li ba ñu réglé waat problème bi. mu toog ay mois jotul jotul feedback wax ne toog nag six mois mu ngi demandé audience xalif général des Mourides mais amu ko comme loolu est-ce que du xalif général yi war nañ am comme genre benn réseau wala benn euh, benn protocole boo xam ne lépp lu jëm ci communication pour. pour euh, faciliter ñoom ak way way ku jegi wala képp kuy kilifa affaire bi gën a yomb est-ce que gisoo ne foofu am na faay ci côté communication. non man du ma ci wax bu Ousmane Sonko man damay référé wu ci sama bopp. xalif mhm. yi ci Sénégal yëpp man dañ maa war a déglu man mhm. bu jagut ak keneen ak keneen ñu nekk ci Sénégal yëpp la war a déglu. Mhm. mais dama ne Ousmane Sonko il est trop trop petit pour venir pour donner de leçon de morale à Serigne Mountakha Mbacké. loolu manque de respect la mais yi ci yoonu yi ci tarixa yi indi ci réew mi moo waral moom mu lu ci ba am benn pouvoir boo xam ni mhm. c'est quasi inexistant mhm. luy jaar la nii rek jàll mhm. xay xëy na euh, vide boobu créé euh, tarixa yi créé moom profité na ci ub hypnotiser jeunesse bi embobiner leen wax leen ni Sénégalu meilleur moom moo ko yoree mais loolu loo loolu man dama koy ñaawlu dama koy ñaawu et li ci li ci topp mooy li xew bërki Dembo Ndiaye ci ci ci ci ci euh, Kër Masar nga wax. Mhm. man dama ne sax li xew bërki Dembo Ndiaye ci àjjuma ji. li am ci waay dans l'histoire du Sénégal. donc c' est gàcce national la pour ñun ñun ci naka. non mais gàcce national la parce que bu ñu demee tey ba benn vide am ci réew mi ci wàllu tarixa mhm. ba benn waay jóge fële ci politique xam nga bu doon ci politique du ma du ma jaaxal. Mhm. mais tarixa yi contre benn parti politique. parti politique bu ñëw. écraser parti politique yi nekk Sénégal bay défier les confrères. Mhm. écart boobu laa lay différence boobu laa lay wax. Mhm. maanaam c'est diamétralement opposé par rapport par rapport ak li yàgg xam. Mhm. mu dem ba créer ay boucan di ñëw ci jumaay Touba ak juma muy am benn désordre bu muy créer mooy am na vide boo xam ne mu ngi fi da cee profité bi nag mooy lan. mooy les tarixa yi fi nekk nii nii instant bi nii non pas euh, accomplir leur mission. li taxoon ñu créer ko taxul jóg dañoo fàtte askan bi. compolo bi ñu comploté nguur gi di dunde askan bi moo tax lu bëre lu ne bëri rek askan bi daw dagg topp ca mais yi xale yi lii ñu topp nii ay Ousmane Sonko parti parti Pastef yaa ko tudd soo ko tudd woon du ko tudd. Mm-hmm. pour moi. Mm-hmm. parti la boo xam ni bi mu ne bëreet man nii dama dawoon la nga mujj seen ginnaaw mais bi ma demee ba ci biir laa xam ni. Mm-hmm. ñoom ils sont pas pour un projet de développement societal économique et cetera. ah pourtant loolu lañ présenté. non non loolu loolu lañ wax ne mooy seen loolu amul ñoom seen ay seen ay projet projet spiritualité la. mooy li ma la wax sànq yee dama ne la man xam naa bu baax li ma lay wax. Mhm. xam naa bu baax li ci des bu ñu demee ba fu ma war a joxe ay révélation de taille dinaa ko def. da ci bokkoon da nga wala da nga pare woon pour bokk ci dara parce que dafa am benn groupe sénégalais boo xam ne c'est des salafistes ñoom idéologie boobu la ñu yore xeetu axlu sunna rek salafiste wax bis et cetera. Mhm. maanaam mën naa leena a wooyee des terroristes. Mhm. pas terroristes buy takk bomb dem di san di sànni ay bomb. mais ils sont terrorisés terroriser la population. Mhm. c'est-à-dire benn idéologie bu am ci diggante chiite ak chiite. Mhm. ay sénégalais yu nekkoon foofu porté boobu ci euh, c'est des traumatisés de la religion. ñu nekk fépp ci àdduna bi képp ku ñu gis ngay leader. boo fippoo di kaas lenn ci réew mi rek dañuy ñëw rek song. boo nangoo ñu defal la ay ay financement orienté la. Mhm. ndax ñoom seen seen loolu la ñu bëgg implanté ci réew mi man on ils ont tenté avec moi su ma nangoon tey dootuma toog ci atelier bi maa ngi ay milliards tey. war pour tenter boole seen groupe. waaw que dañ maa gis may wax li ma naqari ci sama réew. ci affaire waay ci dëkk bi ma dëkk. te man mënumaa dëkk Touba di wax ci Koupentoum wala Koungheul. may wax ci Touba di tudd ay ñoo xam ni ci tarixa bi lañ bokk ñu jàpp ne man damaa génn ci tarix wala damay xeex wala déedéet. ñi ñëw di ma proposé loo xam ba ma demee ba ci biir ma xam ni ñi affaire bu ngëm-ngëm la ñuy indi te man gëwma loolu man xam lu ma ngëm mhm. Sénégal bu yaata yumbe xaalis bi di baawaan xéwal gi di baawaan ku bëgg a baali baali mhm. ku bëgg am sa gel am ko ku bëgg lekk-lekk sama yoon newul ci li ci des ku mu neex nga jël ab tere wala taabul taabal sax teg ko fële di ko jaamu sa yàlla la mhm. lijjanti wuñu loolu bu la neexee jaamu lu la neex bu ci déranger nit ñi. bu ci mm. embêté kenn bu ci nax kenn bu ci bu ci dig kenn àjjana pour lekk xaalisam. Mm-hmm. loolooy waral jub am réew mi dañoo war a jub nit ñi dañoo war a jub ñu jubanti ñëpp. Mm-hmm. donc loolu moom moom mooy li làqatu ci ginnaaw derrière projet bi di Pastef. Mm-hmm. may lancer un appel ba tay rek. démb am na ko bokk ci ñoom xale. bu ñuy wax ngañ Demba. Ngagne Demba boo xam ni il est très éloquent. il est trop élégant. et macha allah il est cohérent c' est mm. que je suis xam nga Seydina man du ma jàng ci nit li may jàng ci nit bariwul. Mm-hmm. li may jàng ci ab téere bariwul. Mm-hmm. parce que nit boo jàngee ci moom ni muy xalaatee la lay jàngal téere boo fi mënti liir ci àdduna bi nit a ko bind. man li jamono di togg man moom lay moom lay jàng moo tax lu ma wax mbindeef du ko dindi comme ni ñu ko waxee sànq mën naa wax benn affaire tey mu metti la. Mm. mais au fil du temps da nga koy gis. Ngagne Demba bari na bokk na ci ñu may suivre Sénégal mais génn na fi ñaar ñetti yoon am éloquence bu mu dégagé nit ñi di ko bàyyi xel. mu mu xaabaabal ci wax jum mais la mu juum dafa am lu mu révélé mu ne projet wu Pastef ci article 5 ba nee projet bi ñu am li ci gën a tuuti mooy fan Ousmane Sonko. Mhm. dem ba ni nag dañoo bëgg dindee nit ñi ci ñu bàyyi jaamu nit dem jaamu ji yàlla mais loolu mooy lu may rafetlu. waaw mais des na am na lu mu ci toofantal mais gars yi dañu dagg parti boobu rek. mais ah, loolu loolu xam nga mhm. Euh, Cheikh Yérim Seck bi ñaata page la. non boobu dañ ciy ñëw spécial. waaw d' accord mm-hmm. ñoom dañ cee cuqati la neex ñu nit. waaw liberté wu cuqati lu ñu neex ci wax ñoom lu ñu wax ñun dañ leen di topp. Mm-hmm. dama ni dafa juum mais njuumte lu gën ci réew mi la. Mm-hmm. ndax dafa positionné ñu baree bare bare ñu doon dutee li mu wax mooy li am. projet wu bu wax naa la ko c' est projet euh, projet wu salafisme la djihadiste et cetera. day terroriser nit ñi. bu ñu ñëwee ñoom. Mhm. li fi nekk nii dañ ko fay bëgg jële suñu bàmmeel yii nii nekk ay Touba yooyu ba xam ni ñëpp xam nañu man sama wax Touba laa ko tàmbale mhm. mais dañuy dem écraser parce que ci affaire spiritualité bi lañ taxaw amuñu projet de société mhm. ci affaire u bam ay bàkkaar lii dafa xaram bidaa la doxaw yooyu intéressé wuñu Sénégal moom mu ne ci biir texte texte passé dañoo bëgg a jële nit ñi ci jaamu nit yóbbu leen ci jaamu yàlla loolu du rôlu parti politique Sénégal l'État du Sénégal devait prendre ses responsabilités le jour J dañoo waroon a dissoudre parti bi waratul exister nous sommes dans une république laïque mhm. Sénégal moom dafa juub dafa juum bu fekkee seen projet mooy jële nit ñi ci bàyyi jaamu nit dem ci jaamu yàlla loolu la Sénégal yëpp bëgg man mi lool laa bëgg mais nit ñi booleen jëlee ci jaamu nit mais yóbbu leen ci jaamu réew parce que dafa am ay yoo xam ne gëmuñu sax yàlla y a des animistes au Sénégal y a des athées au Sénégal y a des ceddo mhm. ñoo xam ne seen yàlla yi bopp la ñu mhm. mais ñooñu ñu ngi contribuer ci développement réew mi ñoom est ce que ñoom nan la mu yor moom et ñoom seen projet bi wax na li ci nekk mais waxul li projet bi tere te seen njiit di ko def projet bi bu fekkee dafa war a jëmale nit ñi ci yàlla daf leen a war a dawloo bàkkaar ak njaaloo te seen pro seen njiit jigéen moo ko ji moo ko jiiñ ak ci kawam loolu njaaloo mënu ko weesu. kon waaw mais loolu tuuma la rek dañ ko tuumaal rek. waaw déedéet xam nga Seydina yàlla buur bi subhaanahu wa taala ci biir alxuraan dafa wax lenn. mu ne mm-hmm. pour ñu seede njiit ku njaaloo. Mm-hmm. wax na ko ci français bi laay ñëw. Mm-hmm. mu ne le créance euh, le le mm, le fornicateur. la fornicatrice. il faut les il faut les frapper de cent coups de fouet de de ne sentir aucun sentiment de pitié envers eux. mu détaillé ko ci biir nii. mais fornication pour ñu approuver ko il faut quatre ñeenti nit yu jógee ci ñeenti endroit mhm. ñëw fekk au moment de xam nga mhm. loolu mala yi ko koy def mhm. mu ne bu fekkente ni ñoom ñoo ko approuver seen bopp xam nga Touba gis nañ ko fa temps leen ndaw su ah. ñëw ne man damaa njaaloo mais pourquoi ñu tëral ko di ko dóor téeméer kenn fekkewu ko moom moo waxal boppam mais kooku daa gën a légitime Adji Sarr aji saar moo waxal boppam moom la victime elle-même. Mhm. moom moo ne kii dafa àgg sama kaw nii la àgg ci sama kaw man jusqu'à preuve du contraire damay gëm ne Adji Sarr. waaw mais mais mais waxi Adji Sarr boobu bu amee wax bu wuutee waxoon fii weddiwaat ko am ay yeneen audio ñëw yu ko approuvé gën a dëggal que ne wax bi amul est-ce que loolu tamit. waaw mais Adji Sarr lu mu mënti wax ci adduna ak lu mënti xew. waaw dafa déposé benn plainte plainte bi li ci nekk. waaw mooy Ousmane Sonko damaa violé. waaw mais mais waaw waaw ci côté mais Adji Sarr ni mu ñëwee bind plainte ne man dañ ma violé. Mm. loolu la dëggalee ci téléphone ci enregistrement audio di wax ne moom violé wuñ ko. déedéet affaire bi complot la man Euh, mosoo dégg audio bi aji naa bi aji saar naan man affaire bi ma Mamour Diallo moo ko tëgg dara amu ci déggoo audio boobu. non déggoo na dama la loolu c' est c' est des faits divers loolu faits divers débat aji saar après orientation bu mënti am ci adduna mhm. bu mënti am ci àdduna moom nee na waa ji àgg na ci kaw mhm. da koo violé. Mhm. Ousmane Sonko nangook aji saar ci benn question boo xam ne ñoom ñaar amuñ ci wute. Ousmane Sonko nee na violé wu. mais néewut laalu ko. damay ñëw ba tey ci yàlla ji bëgg delloo nit ñi laay wax. waxuma ci yoon bi waxuma li Sénégal war a àtte. Mhm. li yàlla ji ñuy a nit ñi. maanaam seen njiit nga xam ne moom moo nar a dëggal wooteef yàlla boobu biir Sénégal. Mhm. li yàlla gën a bañ ci biir alxuraan ay waxam moom ci lañ ko ji. benn bi mooy bokkaale bi ci des mooy ji euh, mooy. Mhm. léegi ñoom bu ñu fi jëlee bokkaale bi mooy googu moom xanaa kon moom dañ koy gisut sëñ bi. dama ne lii c'est une occasion en or pour parti passé bu fekkee idéologie bi. dafa wuteeg li nekk ci bopp Ousmane Sonko. xam naa ni am na ay sénégalais yu digne de son des intellectuels sénégalais yoo xam ne Sénégal moo leen defar. Mhm. ñu juddoo fa yaroo fa. Mhm. judd ci ay parents yu teel a comprendre. ñu leen di yee fajar te di leen sangu ba ñu set di leen yóbbu école ñu dem jàngi sens bu ñu amuloon ñun. Mhm. Sénégal def leen ay intellectuels ba tey ñu am sañ-sañ xam naa ni ils xam nga li ma la amuñu fa les vraies informations ñooñu nañu jël seen ay dispositions jël seen ay responsabilités soit ñu dàq waa ji wala wala waa ji wala waa ji génnal boppam wala ñu génn def taxaw fële wax. wala Sénégal na l' état du Sénégal na jël ay dispositions ses responsabilités ñu dissoudre parti boobu waratul exister. waratul exister. il s'agit plus une question de politique de partisan ou farfi farfa sénégalais yi de manière d'une manière générale ñoo war a def bloc ñu xeex contre ces terroristes là un danger permanent pour le Sénégal man lu leer laa lay wax du ma magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko laay doon ba ma juddoo ba léegi lu ma ma soox ci àdduna mhm. nit ñi dinañ ko gis man je peux être je ci ni may xalaati par rapport ak sama génération mais lu ma la wax rek c'est une question de temps et de l'histoire comme loolu boo bàyyiwul dara mhm. moo may affaire yi mhm. kon daal euh, jàpp nga ne euh, euh, projet PASTEF doyu la à pour cent digaloo ci àdduna ci àdduna benn projet wu politique bu nekk Sénégal parti politique doyuma parce que dama laa wax benn dama ne. Mm. de 1960 à nos jours. à nos jours. Sénégal est pris en otage. Mm-hmm. par deux pouvoirs. pouvoir temporel et pouvoir religieux. Mm-hmm. ñoom ñooy séddoo dividende du Sénégal ñun ñu ëpp ci askan ñu naawtal ñu nax ñu ci politique nax ñu ci yàlla. Mm-hmm. loolu laay xeex. ok xaw ma ndax comprendre nga li may wax. comprendre Sénégal amul problème mu programme. amul problème homme fort parce que institution yi taxaw na démocratiquement suñu réew mi ngi dem yaawu jaal bu ñu ko faloon sénégalais yi dinañ ko accompagner mu doxal réew mi. Mhm. buñ jubalee mais li mu am ak ëkk. Mhm. ëkk gi sénégalais dañ leen a exploiter seen ay cerveau. Mhm. xalaatuñu pour injecter wala ñu xam le le sens de leur existence. pour ñu mën a concentrer ci développement wu suñu réew. ñu ngi ci ay faits divers yoo xam ne amul bopp amul jéem. loolu du Pastef moo indi parce que li koy symboliser ñoom ñu ngi koy def. moo fi ñëw. bokk ci salafiste yi. ñu mm-hmm. ko boo gisee seen financement yi suñu wootee xaalis xaalis bi génn automatiquement da ngaa foog nit ñi rek ñooy cotiser parce que ay finance su ma ko bëggoon suba man mën naa ko am parce que ñoom proposé nañ ma ko man mii di wax ak ñoom kon da jàpp ne dafa ñu ne ci ginnaaw di financé bis bu temps moment bi jotee ba ñu taxaw ci ensemble national wala ñu taxaw fu ñu permettre ñu mën ko wax dinaa joxe ay détails man Sénégal daf maa ñor dama ni la ay caaxaan la ci ay caaxaan la ñu nekk benn parti ci ñoom doyuma ñoom ñëpp ñi may dégg kenn waxu ci li yàq réew mi yàq réew mi mooy politique complot politique religieux. Mhm. politico-religieux. Mhm. loolu moo yàq réew mi. Mhm. loolu na képp ku bëgg a defar réew mi force nga wax ko. ñu la ciy gëm gëm la ci muy une majorité silencieuse ñu jàppale la accompagner ñuy yee nit ñi ba ñu mën a comprendre ni. yow mii kat nag man ngaa defar réew mi ndax dëggu nga. man moom du ma la dëgg. man Sénégal lu ëllëg wax naa la ko sànni. maanaam sama bopp bi laa ci pare lépp luy ay tàppale ci réew mi dinaa ko wax Seydina lépp luy ay tàppale ci réew mi dinaa ko wax. teewumaa doonu murid teewumaa gëm Sëriñ mooy sax man message bi ma jëlee ci moom booy li ma gën a frappé ku tedd bi mooy yoon wi ak réew mi ak ku ngore bañ da cee bokk parce que man mis yi ma am ci moom yëpp da doon bañ. Mhm. bureau ba ca Ndar. Mhm. liñ la ci wax dafa bañ. Mhm. bu dee ca géej ga dafa bañ. Gabon dafa bañ et cetera et bañ bañ kooku man moom laa jëlee ci moom peut looloo def li ma doon na. Euh, bala ñoo jeexal bala ñoo dugg ci beneen parti yi bu ci livre Cheikh Yérim Seck bi ci biir. Euh, entre euh, tey projet bu usman Sonko aji Sarr gis nañ juge bi euh, doyen des juges jël na euh, yóbbu ko chambre criminelle ñu war ko àtte te dossier boo xam ne ay avocat Ousmane Sonko demandé nañu requête ay yooni yoon wax ne gannaaw amul certificat médical buy buy wax ne viole am na rek déjà dañu waroon a jël mbir yëpp teg ci suuf dem xooli leneen est-ce que wóolu nga justice Sénégal tey ci dossier bu usman Sonko ak Adji Sarr. waaw wóolu naa justice sama gëmoo en tant que ku maam man su ma amoon problème Sénégal justice lay moom la preuve Ousmane Sonko aw ma j'ai aucun problème à sa personne. ça ne m'intéresse pas il ne m'intéresse d'ailleurs pas. Mhm. parce que mënul wax man lu ma épaté. Mhm. moom moo porté plainte Mame ñaan Niang wala Mame Mbaye. Mame Mbaye moo porté plainte yaa. entre Ousmane Sonko Cheikh Yérim Seck. kan moo porté plainte. Euh, kan a porté plainte. Ousmane Sonko moo annoncé plainte pour. Cheikh Yérim Seck pour moo annoncé dire que am na benn croyance ci suñuy xam nga li ma la wax. jàpp naa ni Sénégal am na benn transition bu muy traversé déglu lu baax li ma lay wax. quelque Sonko quel soit danger bu nekk ci moom ak li muy woote quel soit lu ko état bëgg faagaagale parce que am nañ occasion buñ jaar mais seen nag il faut ñu respecter aussi ses mm-hmm. am na ay pro palpables yu yu Adji Sarr yoo xam ne bu bu ñu buuxee état bu mu sëf bu ñu ko génnee rek sénégalais yu bari dinañ am crise cardiaque mais. au-delà de l'adversité bi c'est un être quelqu'un qu'il faut protéger am na jabar ami doom te ëllëg kenn xamut lu mën a doon ci réew te nag am na yenn mbir yoo xam ne buñ ko buccee fekk ko ci tabal bi gàcce doon pour Sénégal d'une manière générale xaw ma ndax comprendre li ba ci turu politique maanaam da ngay wax ne am nay vidéo a ah, ay comme ni ñu ko waxee xam naa dara ça existe dafa am parce que waa ji il respecte pas sa personne Ah maanaam yaram bi rek la jàpp di ko séddale ci xale yi jigéen yi seen téléphone. ah bon bari yaram nañ te moom man xam naa baax li ma lay wax. dégg rek bëgguma dugg foofu dama ne. ok dafa am yoo xam ne image yoo xam ne buñ ko génnee ci réew mi ci wàllu politique rek maanaam day yàq deru Sénégal kon ñëpp nañu dépassé seen pays yi. Mm-hmm. ñu dépassé suñu bopp te xool Sénégal ëllëg lan lañ ci lan lañ ci nete am nañu prof ndoolu bu ñu jaar. Mm-hmm. prof ndoolu bi mooy do euh, plainte Mame Mbaye Niang. plainte Mame Mbaye Niang. moo gën a yomb ci moom Ousmane Sonko booboo ko gën a mm-hmm. parce que bu kaaw Adji Sarr bi buñ ko ci atte yóbbu ko si ba procès am dina am gàcce national te il est éliminé à par contre bu Mame Mbaye Niang bi bu ko réussir mën nañ ko faciliter next échéance présidentielle pas 2024 ba ca topp dina mën a libre bokk te nguur gi tamit bii c'est moins dangereux pour ñoom mhm. moo tax am nañu issue nañu jaar ci issue boobu te xam naa ni moo leen gënal. ko mhm. ma ndax comprendre nga li may wax. xam naa bu baax la mhm. lu may lancé la quoi. kon kon jàpp nga ne daal mu moom mu nangu kon ñëw ci. ñëw justice daan ko ci. no bi amul mu nangu ak mu bañ bu fekkee man bay ñaar fu mu mës a jaar ak ñi mu plaintoon ci dima diffamation moom fa lay jaar ak Ousmane Sonko tey bu soree curie loolu amul wax mais dama ni boobu. Mhm. moo gën ci Sénégal Ousmane Sonko xam na ni booboo ko gënal. comme ñu condamné ko ci ci affaire Mame Mbaye Niang ñu traîné bu Adji Sarr. Mhm. négocier ak Adji Sarr y' a 14 morts bref nañ ko négocier dem indemniser nit ñi mais ala kulli Sénégal dafa nekk ci beneen phase boo xam ne il faut mu am ay négociation a ñàkk. Mhm. comme am nañu beneen cas moo gën a mën a woyofal affaire bi. Mhm. nañ ci jaar. moom it booboo ko gënal. lu leer laa lay wax nii. d' euh, ci temps yi ñu gis sa page Facebook nga def benn vidéo wax ne Touba moo nekk dëkk bu gën a désordre ci ci ci àdduna wala ci Sénégal euh, loolu fan nga ko teg ci ban côté la ci côté environnement la. ci côté euh, ci côté éducation la ci côté. maanaam sur tous les xam nga man Touba dama ko bëgg sama biir xol ba bu may seetaan wax sa xalaat. su nit wootee de ñu décroché ñu ko fooy wootee mu ne Touba sama parce que man maa bëgg Touba ci sama biir xol mais dafa am góom boo xam ni soo ko laalul du fay. Touba devait être comme Madinatul Munawwara dafa waroon a mel ni Madinatul Munawwara waaye saa waay. fu Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul tëdd saa waay. foofu ordre moo ko war a am. ak organisation ak méthode. ñu lijjanti Sénégal mu dem yoonam. mais sur tous les plans sur tous les plans y a un désordre total. il faut ñu waxtaane ko damay jël sama bëgg Touba teg na léegi jël defar gi ma war a defar Touba te mbir mi suñ ko waxul duñ ko defar. sur tous les plans y a un désordre. gis nga suñu marché à l'intervalle de un an et demi peut-être rek na trois à quatre fois. lu ko waral kenn xamul. déguerpissement bi bëgg am le 26 da ngay gis ñu jékki dindi nit ñi ñoo xam ni ay nit yu kóola kóola di taxale amuñu fuñ jëm mhm. ay xale yoo xam ne ci daara yi lañ nekkoon dem jàng mhm. jeexal bi ñëwee fekk seen i waajur màggat nañu mhm. amuñu fuñ jëm ñoom ñooy dem dajaloo di def ay cotisation ay tontine di dajaloo di def ay natt bi ñu am ay frais ñoom ñooy dem ci brouette ambulance brouette bu mu jaaguñu teg table bu mu jaaguñu teg cantine ñooñu ñoom ñooy lakkale ñoom la ñuy dëgër ci ñu am fu ñu leen yóbbu xam nga ñaata capital a daanuwaat xam nga ñaata perte de a am mm-hmm. dañ ko war a waxtaane moo bu fëlee xale yi daw topp ko mm-hmm. te loolu wurul am mm-hmm. maanaam ñun tarixa bi dafa war a nekk loo xam ne non seulement sur le plan économique dafa war a téye Sénégal sur le plan stabilité mu téye Sénégal et sur le plan développement mu téye Sénégal ba pare amul kenn ku leen war a ñemee défier ba pare du am benn danger boo xam ne moo ci am du am timit ñoo xam ne ñoom ñooy nekk ñoom ñooy payer le pot cassé de loolu xamu ndax comprendre nga li mm-hmm. loolu liggéey bu yaatu la laaj te war nañ ci waxtaan moo tax ma ni la confrérie mouride doit organiser benn assise mm-hmm. war nañu def les assises de la confrérie ñu bañ a xeeb ñëpp Cheikh Thiam tailleur la ñuul na ñaaw na wala Massamba ma nga fële déedéet nañu ci boole ñëpp ñu toog waxtaan waxtaanu biir ñu xool nan la ñuy joyantee mm-hmm. parce que nag du la nëbb yoonu murit bokk ci confrérie yi ëpp doole ci àdduna bi li ëpp doole ci àdduna bi dañ koo am am nañu ay ndaw am nañu ñu am doole am nañu ñu am xaalis am ñu am xam-xam te benn jëmm bu ubbee gémmiñam laaj lépp dajo daje mais lan moo war a mën a très développé wu ñu Sénégal waxuma ak nag dëkk bi ñu nekk loolu c'est inadmissible ah, pourtant ñu ngi góorgóorlu parce que ci côté euh, ci côté assainissement ci côté infrastructure yooyu yëpp c'est des tâtonnements c'est des c'est des choses qu'on fait Serigne Mountakha mu ngi def ay affaires day joxe ay ndigal wala ay nit organiser seeni mbir. Mhm. ñëw jox ko muy lu rafet mu gis ni rafet na mun leen def leen mais c'est des tâtonnements dañuy tâtonner. Mhm. dama ne dañoo am ay spécialistes sur tout les domaines à mhm. travers le monde foo mënti dem ci monde bi. dafa am ay murit yu fa juddoo yoroo fa ay ci seen nekk ay ay punkal. nañu def ay as yi ñu convoqué ñëpp ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu joyante suñu mbir mi foofu rek laa ci mën a yem. waaw li ci des waxtaanu biir la. voilà doon naa ci wax lu ma naqari muy naqari nit ñi. instant bi bi ma xawee woyefal discours bi dama changé sax discours far mais gën na jàll. damaa bëgg ñu gën ma dégg ba xam ne man li may wax sama la dañ la woo tegaat la ci. déedéet na la nangu nañ dëgg la. non xam mais pour ma mën a gën a dugg ci biir xolu nit ñi il faut ma changer discours. ba pare dafa am circonstance bu ko waral. Mhm. li xew barki démb ci ajuma ji ci jumaa ji Ousmane Sonko ni mu ñëwee jaay ñu réewoon rek jaxase foofu yëpp dem yoonam def ay signe ma jàngat ko ma ni non il va falloir que ma oh, jël sama responsabilité. mais tamit ni ko policier yeeg gendarme yi carré woon loolu tamit. non droit ku nekk am nga sañ-sañu. dem mais moom dañoo rentré biir ba je t'explique ok weddiwuma loolu dama ni ku ne am nga sañ-sañu. dugg biir tubaa am nga sañ-sañu dem Tivaouane wala Kaolack dugg ca jumaa ja mhm. julli sa julli. Mhm. mais dafa am ay signes yoo xam ni sinti ni c'est des faits yoo xam ni il s'est gonflé sa poitrine parce que il s'est pesé. moom xam naa ni am na doole jeunesse bi bëgg nañ ko xam naa baax li lay wax. dafa am yoo xam ne xajut sa caméra bii xam nga li ma la wax loolu ci biir lañ koy lijjatee waaw waaw donc <laughs> noonu noonu noonu la fa demee Seydina. ok euh, voici ñu dem ci euh, livre yi Yérim Seck bi gis nga ne mu def livre boo xam ne jaaxal na ñu bari parce que livre bi gaaw na annoncé wuñu ko euh, bind nañ ko ay deux cent et quelques pages. ñu xëy suba rek livre bi bari ay njombe yu ne ci biir wax ci Macky jeexalee nangam dugg accusation fekk nañ Ousmane Sonko ci corniche bi te ay la yeween ñu bari ñoo ngi wax ne loolu du woon Ousmane Sonko c'est quelqu'un d'autre mhm. keneen la te kilifa la au Sénégal euh, est-ce que loolu du ay du woon ay affaire bu ñu yàkkamti rek bind ko livre pour yàq dara doomu aadama gëm nga ne livre boobu parti damay dugg tuuti rek partie bi ci euh, euh, wala parti bi ci Cheikh Yérim Seck tudd usman Sonko wax bu yenu wax bu dëgg la est-ce que parewul bind ko rek pour yàq euh, xelu nit ñi wala pour yàq. non damay damay xam nga man damaa nekk nit ku bari wax. torop mais lu ma la wax lu ma gëm la même su may ci li ma gëm laay juum ba may gis lu ma joyanti man nangu jubbantiku. Mm-hmm. du ma wax mukk lu ma xamul na ci mm-hmm. àdduna. Mm-hmm. moo tax du ma wax ci livre bi li ci biir parce que man mënumaa bind munuma liir sama tur Sénégal daf ma yàq. wax naa la ko. lu ma liirul mënu ma koo bi mënu ko commenter. sénégalais yu bari ñu ngi wax ci livre bi te liiruñu ko. man liiruma. mënumaa lire livre livre bi fuité na de en PDF la man naa la ko yónnee léegi. non non non livre bi mën naa ko am sax audio man Cheikh Yirim seek sama xarit la su ma ko woon dana ma expliquer lu ma ci bëgg a xam dana ma ko mais dama cee bëgg a maandu mais mën mhm. li ci ginnaaw livre bi. mooy ci moment bi mu ko bindee. Mhm. muy moment boo xam ni contexte suñu réew. Mhm. du lu jël position wala nga wax sa xalaat. may seetlu waxkat yi ay journaliste wala chroniqueur wala analyste sociologue. ñii toog ci plateau télévision yi di wax ñépp kenn ku ci nekk da ngay jël part wala nga wala wala dóor wala dóor xaw ma ndax comprendre nga li mu ngi bëgg a wax mhm. les journalistes mhm. les chroniqueurs les analystes les scientifiques maanaam képp kuy jël micro di wax Sénégal maanaam affaire kaaw Ousmane Sonko Adji Sarr dafa def leen a diviser xamatoo ku ne ci dëkk kii day far fii ñee far fee soit ñii ci Sonko lañuy ñuy far ñii far ci nguur gi kenn ku ne yaa ngi dàq sa intérêt crypto personnel parce que ñi bëgg nañ ci ay poste ñee jàpp nañ ñi waa ji day falu ñu koy xeexal mhm. maanaam ñu nekk ci benn débat boo xam ni teera maanaam ni mu ñàkkee valeur musuma gis débat bu mel noonu ci histoire du Sénégal mhm. moom mu jël ay responsabilité ñëw bind ci parce que d'ici quinze ans vingt ans li ñuy nekk di def ni yépp histoire da koy tracé suñu sët yi dañuy dem di ko gëstu ji naan waa mais affaire Adji Sarr Sonko amoon na fi ay problème xam nga yaay dégg ci jamono yi ñu naan Sonko euh, kii Senghor jamonoy Senghor Mamadou Dia nangam ñu ngi koy wax nii la ñuy waxtaane ñun suñu ka man lii may wax nii samay sët yi nga xam ni samay sët lañ te xàmmee ma ci mhm. lii lañ ci am après ni sama maam kat nii la taxee woon ca kaaba lii la waxoon xëy na jafe jamono yi naxa neexoon naa ko wala naqare woon naa ko man courage boobu la Cheikh Yérim sekk am moom laa jël moom laay wax il a pris son pour wax li mu ci xalaat ci jamono ji nga xam ni Sénégal neexut a waxee mu bind lim ci xalaat lim ci wax ci biir dëgg la wala du dëgg dafa faral ma Samba dafa faral ma Demba ça ne m'intéresse guère parce que ñi ci tudd ñëpp ci nguur gi lay wax ak ci kuje gi ñoom ñëpp intéressé wuñ ma pour man ñoom ñëpp dañuy fooy. ah mais waaw mais moom gannaaw sa xarit la en tant que journaliste. Mmh. jamono boobu mbir moom li muy wax bi muy am 2011 moom journaliste la woon à l'époque xamoon na loolu. am na yow benn fee ngay expliquer waaw damay laaj ci fee boobu na parce ndax. ndax yow defu pour yàq doomu aadama parce que xam nga ne livre du luy du luy du luy euh, du luy deñ c'est abadan bokkul ak loo xam ne presse daf ko bind nii après ceex na loo xam ne day day continuer la à vie est que loolu defu ko aussi pour mën a yàq doomu aadama wala pour gisoo ko noonu yow. non xam nga man su ma ne li mu wax dëgg la. day mel ni acharnement laa am ci la personne de Ousmane Sonko. d'accord et lu ma nekk adversaire am tamit. Mhm. man <laughs> je veux sama adversaire du ma ko jam ci ginnaaw damay jàkkaarloo mu wax ko li ma ko wax. Mhm. du ma ci accroché wu rek di ko taachal du ma def loolu. mais du ma ko weddi tamit parce que Cheikh Yérim est un grand journaliste. Mhm. un très grand journaliste. ku ñu reconnaître si suñu continent bi. mu interviewé beaucoup de chefs d'État d'Afrique. am na ay jaar-jaaram man mais. problème mu personne ça ne m'intéresse pas moom dina jël ay responsabilités un jour tu en auras l'occasion de lui poser cette question moom dina ci tontu li nekk ci xelam xaw ma ko la mu gis ak fam ko teg xaw ma ko même bu dee sama nit tamit du tax ma faral ko ci ni wax na dëgg wala waxul dëgg mais man daal entourage u maanaam li wër livre bi ci moment yi mu ko bindee ak responsabilité mi yi mu jël ak lam ca détail lam ca wax man loolu laay apprécier loolu laay saluer te muy li jafee jël nag ci moment boobu nga xam ni soo waxul jëm ci cas opposition bi ok jamono ji euh, fi ñu koy jeexalee rek ci wàllum justice parce que boo nee troisième mandat sa xel dina dem ci justice. Mhm. ak euh, problème mu constitution bi waaw benn manda laa def tax naa cax bi ñaari yoon bii cinq ans la woon bi sept ans la débat boobu Cheikh Thiam ngay def analyse yu am solo. Mhm. naka nga may analyser que ne président Macky Sall am na droit def troisième candidature pas mandat. Mhm. parce que ñu bari dañ naan troisième mandat mais c'est troisième candidature am déet wala parce que bu dee mandat la askan ñoo koy jox. mais bu dee candidature moom mooy taxaw laaj ko est-ce que am na ko. Seydina tey laa lay confirmer ou prouver que ni ni may xalaatee ak ni sénégalais yi di xalaatee lu benn. Mhm. nee naa la Macky Sall ak ñi koy nguur nguuru ñi koy wuutu. ñoom ñëpp dañuy tappale di ñu nax. ndonte ku fi nekk nag di nga defar di nga jëm ci Sénégal dara. Mhm. ndax Sénégal position boobu la ko yàlla jagleel ci Afrique mais problème mu mandat. Mhm. wala candidature. dama bëgg nga déglu ma soigneusement. lan la constitution bi wax pour yow. constitution bi lan la wax. ci article bi ñu wax ne moo limité mandat yi lan la wax. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. consécutifs yes. plus de deux mandats consécutifs. man sama dégg tubaab soriwul. waaye li ma ci dégg mën naa koo càmbar ci sama xel ba pare wax la fi may taxaw. nul mooy lenn kenn. kenn mënut a def. Mhm. plus lu ëpp ñaari mandat bu la nul ne peut faire plus de deux mandats xam nga deux manda mooy ñaar yu dend xaw ma ndax xaw ma ndax comprendre nga su ma su ma ci tegee consécutif mooy ñaar yu dend ba pare nuroo tolloo loolu mën naa ko non non attends attends je ne suis pas en train de jeter les fleurs à à président Macky Sall déglu rek ma wax la li may man farlu. ok ma rek man sama xel laa utiliser. dama lay wax li may xalaate man. ok bu ne nul ne peut faire plus de deux. Ah. mooy mënoo def ñaar jeex na ñaar def ñaar waaw. jeex na. mais dañuy kenn mënta def. lu weesu ñaar yu nuroo. léegi nag. Mhm. foofu la sama question nekk. question bi dama koy poser Sénégalais yëpp. man je pose damay opposé wu. président Macky Sall mais bokkuma ci opposition bi nga xam ni c' est une opposition très malhonnête. damay être cohérent je vais être cohérent avec moi-même. damay laaj bu fekkente ni ñaari mandat la war a def. élection yi kañ lay war a doon. bu fekkee ñaari mandat waroon na élection yi waroon na doon depuis 2019. fekkoon ci cinq ans non parce que dafa wax ne. Hmm. mandat sept ans lañ ko fale. waaw mais bu demandé woon ne cinq ans. accord bu fekkee bu demee dugal requête. Euh, bu fekkee ci constitution bi bi ñu defee référendum bi ba affaire bi jàll. bu fekkee ñoom jàpp nañu mandat wu sept ans bi. day bokk. mais kañ la war a doon élection. Euh, bu bu bu bu bi wala bu cinq ans bi. non mais yow def na ñaari mandat jàpp ngeen ni def na ñaari mandat waaw def na ñaari mandat mais kañ la élection war a. 2024 la élection war a. nan la 2000 loolu mooy problème bi. loolu y' a un problème su nekkee ñaari mandat la war a def. mais il 2026 vingt élection war a am bu fekkee bii mooy deux dernier mandat kon 2026 vingt war a am parce que def na benn sept ans. waaw mais moo ñëw dugal référendum 2017 wax na gars yi nañu nañu. non non déglu bu baax li ma lay wax. ah oui dama ne mhm. li may wax ni opposition bi ñoom laa koy laaj. ok bu fekkee président Macky Sall dafa war a def ñaari mandat ñoom lan moo leen xamal ni élection yi 2024 la war a doon. Mhm. déglu bu baax li ma wax mhm. lan moo leen ko xamal. foofu ñoom question bu ma leen di laaj la nañ tontu. dañ ci tontu ñoom. non mënuñu koo tontu parce que boo xamee ni waa ji ñaar la war def kon ñaari sept la war a def nañ ko kon na def comme li li Ablaye Wade waxoon moom mooy dellu si. Mhm. soit mi ngi doog a jeexal benn mandat wu cinq ans war a defaat beneen bu cinq ans. que je ne suis pas du tout d'accord damaa jàpp ni dafa war dem man loolu laa gëm mhm. soit mu def ñaari mandat kon ñaari mandat yi 2026 la beneen bi sept ans la war a doon te bu fekkente ni moom jeexal na ci 14 ans yi nii keneen kiy ñëw say 14 ans noo koy tàmbalee bu njëkk bi mooy doon set wala bu mujj ba mooy doon set. Ah, question la de. waaw laaj naa ko opposition bi laaj naa ko Sénégal yëpp nañ ci xalaat. maanaam mooy li ma la Sénégal ñëpp dañuy tappale kenn ku ne li la arrangé rek ngay wax mais kenn du ci analyser nekk ci dëgg. ah est que du tayeeram bi kon moo ko moo moo xàll yoon bi. parce que moom. am dañ ñoo foowee ci référendum ba lañ ñu naxee. ci référendum ba la ñu naxe pourtant référendum bi opposition bi defoon na lu mu man ne gars yi mais ñoom wax nañ ko la ñu waxoon la Ousmane Sonko ak kii waxoon Barthélémy Diaz mm-hmm. mais xam nañu li may wax ni moo am ñu ne moom bu jàllee mënatuñ ci dara ñoom ñoom mm-hmm. a priori amuñu droit génn di wax waxu troisième mandat parce que Macky Sall da koo dëxañ ci biir ay ndëgg sërëx dugalee leen ko ñu voté ko mu jàll sa mm-hmm. veut dire que Macky vient de faire son premier mandat de cinq war a def beneen mandat bu cinq ci lim ñu naxee ñun loolu loolu mooy li am lii mooy li am. voilà man nag suma sañoon makki Sall est encore très jeune war a am yeneen poste yu mu war a occuper sur le plan international suma sañoon mu doyal ñu jox keneen ñu jox ma ah. man. loolu laa gëm man gëm naa ni Sénégal maa ko mën a defar Seydina barki alxuraan bugguma ree sax ñi ñu jàpp ni sérieux ma ci li ma wax. <laughs> waay sérieux nga <laughs> waaw loolu laa gëm. d'accord comme man comme. jox ñu ñun waaw ma réew. Mhm. ñu ñëw diriger réew mi defar ko. Mm-hmm. Seydina mm-hmm. dafa am yu am suñu réew muy une chance pour suñu réew mm-hmm. dafa am les assises nationales bu ma am chance wu lire ko xool li ci ne pas liir nii mais ma déglu ko parce que ay nit toog nañ ci def ci ay exposé oral ma déglu li ci nekk mu régler questionnement wu problématique yi ñu am suñu réew problématique yépp la régler sur le l'étendue du territoire fépp fu ab sénégalais mun a nekk ci biir réew mi les assises ont réglé ce problème pour que yow nga gis say àq ak say yelleef ci biir réew mi mais li ma la ëkk gi moo téye réew mi te ëkk googu il faut ñu faram fàcce ko ñu téye ko ëkk gi li ko waral tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ëkk yi c'est des innocents xamuñu ndax complot beneen complot bu tege ci seen kaw la boo xam ne moo waral ñoom ñi cautionné ëkk gi téye réew mi débat bu yaatu la laaj ak ay boroomi xam-xam il faut ñu waxtaane ko munta ñàkk fi ñu koy jeexalee mooy communauté sénégalaise bi fi ñu nekk nii di association des sénégalais d' Amérique. Mhm. coow li bari na depuis mois de wala avant décembre. ci mhm. ay candidature laajoon élection audit ay coow lu ne ñu ngi ko ci dégg. entre euh, du Dramé Sadio Yaya Bari Serigne Mbacke Ndiaye consort ñu ci dégg coow lu rëy ci affaire détournement euh, jaay këru association bi lekk xaalis bi amee bor coow loolu yaa ngi fi euh, ndax yëg nga yëg nga yëg nga coow loolu. waaw yëg naa coowal association des sénégalais des États-Unis seen problème bi ñu am. Mhm. bii moo fës. Mhm. mais tous les associations des sénégalais de l'extérieur mhm. ont les mêmes problèmes man du ma ñëw ci ñoom li ñu séq coow li mhm. nee nañu ñi fi nekkoon dañoo luubal moo tax nanguwu ñoo jógee ñu accroché wu ci pouvoir bi et ce qui tout à fait normal ndax Sénégal lépp lu ñu jiite dañuy luubal loolu ala kulli al moom ñoom nee nañu Serigne Mbacké Ndiaye il est brouillon il n'a pas respecté les rendez-vous këy diñ ko laaj indiwu ko ñoom loolu lañ ko jiiñ mu créé ñaari élection ku ne def nga say élection léegi am nañu problème ñu ngi ci ay yëg ak wàcc dem na justice man pour man muy gàcce national gàcca muy wanee ni rek ñun fu ñu dem yóbbu fa suñu suñ suñu matadi suñu waye di Seydina y a plus presque cinq presque cinquante mille mhm. sénégalais ñoo nekk fii ndi yorku gi mhm. wala mu jege ko jour élection yi ñaari élection ñoo am. Mhm. li génn yëpp matuñu deux cent personnes. amul kenn ku ci deux cent personnes voté. waaw fële sa euh, Dramé c' est cent trente quatre. cent trente quatre cent quarante et quelques Serigne cent soixante dix. matul sax trois cent et quelques personnes. loolu war nañ ci taxaw jàngat lu waral loolu. te am nañ plus de cinquante mille. Euh, déggoo li ma la waaw plus de cinquante mille sénégalais ñu ngi fii ci diggante New York Bronx fii nii. ñi génn ñëpp matuñu quatre cent personnes. loolu mooy li ma la wax ni la nous sommes des traumatisés de la religion gis nga suñu association. Euh, sénégalaise de l'extérieur wala lépp lu ñuy def ci wàllu culture wala aada interfération religion wala politique mhm. mooy indi ay chamboulement ba li ci war a am du am mhm. les sénégalais deviennent réticents parce que nous sommes traumatisés mhm. ñun fonk ñu suñu communauté suñu ay communauté la ñu fonk dama joxe exemple ci communauté tchadienne tchadiens yi nekk Amérique yépp boo leen boole matuñu quinze mille tchadiens am nañu association boo xam ne building la ñu jënd building six étages tchadien bu daggee Tchad bii ñëw fii soo ñëwee dañ lay héberger six mois. xam nga li ma la doo fay lekk doo fay naan utal la liggéey ba nga mën a am néeg doo ko dem tuxu càjjee bu fi faatu fii dinañ la daggal billet def ci def ci six mille dollars boole la ak ñaari nit yu accompagner corps bi pour mën ko jox sa famille. matu matuñu quinze mille matuñu dara fii matuñu rek ñaari quartier fii ci biir Amérique càjjee yi ñoom mën nañu def loolu. xam nga Guinée fii lan la ñu capable def du ma ci ñëw. mais xam nga Sénégal la tax mënuñu ko. Mm-hmm. parce que interfération bi ñu confrérie yi interféré moo ñu divisé ñu nekk ci chamboulement boo xam ni c'est extraordinaire murid yi beru di créer seen i lobby créer seen i am benn as ñuy arnaqué nit ñi di jël seen xaalis tijaan yi kasaalika naka noonu créer seen ay zawiya alaaji maalik ñuy tabax ay yoo xam ne amul bopp amul génn amul njariñ laayeen yi beru fee ñaseen yi beru fee kenn bugg ci sa morom dans ce sens ñu diver ñu diversifier ñu kenn du am njariñ loolu moo dal association bi nekk France moo dal boo demee sénégalais fii dem ci daayira bi joxe fa moo ko gënal jënd 10 dollars membre ci association bi moo am ci association sénégalais benn waaye mooy jóge fa li ñëw ci mbedd yi ñuy lambar lambar ñu ne dañuy gàmmoo la dañuy bamba am fii lu jàpp mun du ñu ay nit sëñ bi lii yépp nag liggéeyu ma réew la ma réew dafa ñëw pour liggéey li lii loolu moom mooy suñu rôle Seydina ñëw ma ñëw ma nii rek ci ci àdduna bi jekki-jekki rek ni pël nii rek ndax di mel ni ku mer de déedéet damaa xam li xew ci réew mi te damaa war a lijjanti réew mi. ok ndax ma réew kon pare na pour doon doon doon njiitu président association des sénégalais d' Amérique. ma réew ma réew Sénégal la bëgg a jiite. ok man 2024 damay nekk candidat barke Serigne Touba Mbacke loolu laa kon kon kon foog ñu ñëwaat waxtaan ci say. projet non ñëwal ma wax la li ñu nar ñu ngi ciy liggéey bu pare man damay nekk candidat Seydina bu ma reeloo. <laughs> <laughs> non xam naa da nga sérieux xam naa da nga sérieux ci li ngay wax euh, te da ngay def ay analyses yu pertinent nit ñi dañ lay dañ lay bàyyi xel peut-être ñi ne Sénégal sax dañ lay bàyyi xel mais ñi ne Amérique fii euh, boo ne Cheikh Thiam de fois nga dugg ci métro gi Sénégalais yi sa page Facebook la ñuy taxaw damay gis fii rek xam ne Seydina Cheikh Thiam la ñuy seetaan Seydina dama lay xamal benn affaire voilà dafa am lu ma la juñ dama koy leeral pour jeunes yi ñuy déglu mm-hmm. tubaab bi dañuy partir de rien pour devenir quelqu'un mm-hmm. c'est possible tubaab am na nu ko anglais di waxee xaw ma ko mm-hmm. man Touba laa juddoo yoroo fa màggee fa gis nga bi ma juddoo ba bi may xamee ci basang laa xamee basang <laughs> sama néeg maam la ñu dëkkoon man ak sama yaay. Mhm. ak sama rakk yaay ak samay yeneen i rakk ci basang laa xamee amoon nañu ginaar du ma tàyyi di ko wax amuñu woon njëgu ngunu tabaski géer yi ñu wër ñoo daan rendi di ñu jox xar ñuy lekk màggal dañuy dajaleel yàpp sama nijaay dem fees yi ñu taqale am yàpp nag ñu dajaleel ñu ñu lekk ci loolu laa judd yaru ci màgg ci mhm. bi ma njëkkee naanu coca cola fàttaliku naa ko bi ma njëkkee lekk pom fàttaliku naa ko malgré Touba laa juddoo. kon développement wu Touba ba xéwal gi yaatu yàggul. Hmm. te biir Gédé laa la la la laa nekkee laa nekkee gone. yàlla moo ma dimbali ma traversé lépp luy transition wu si ñu pauvreté ak ndóol ak coono ak misérabilité wu. gis nga nit ñi fi ñuy jaar bay nax ñi misérable pour ñu téye leen échelle ñu yéeg loolu laa bëgg ñu bañ ko te xam ne ñun ñoo yor doole Sénégal am na information de base traditionnelle soo gisee intellectuel bu ñu toogee ci télé yi di wax sénégalais yi li ëpp sénégalais yi que amuñu information yu ñun li ñu jaar li ëpp bi ba base bi éducation bi ma jaar li ëpp ci sénégalais yi loolu la ñuy jaar te ñun ñi ñuy jiite dañu am déca écart bu mag man nag dafa am retrouvaille de circonstance bu nekk ci man je ne suis pas en train de me jeter des fleurs mhm. c'est une circonstance damay taxaw position wu luciole xam nga luciole mhm. mooy gunóor guy naaw genn gi di tàkk parfois muy fay mhm. une lumière dans le noir c'est une mission qui m'a été confiée xaw ma ndax comprendre nga ma je suis une solution pour le réveil de conscience de la jeunesse maa ñor de dafa nekk sama biir dërët. incha allah voilà loolu loolu moom booy ñu bàyyi la nga xam naa foog ñu ñëwaat. Hmm. gën a waxtaan ci ma réew ma réew. waaw loolu doon na ma neex ko toj ba avant les élections lan ngay pare pour def ko parce que xam naa di nga déclarer sa candidature. may xamal ma réew yi ci àdduna bi ma waxaat ko une fois de plus. Hmm. ma réew man ngaa nekk animiste nekk ko nekk murit te jël nga sa port ñëpp. xaadir laay ma réew mooy Sénégal xam nga lu ñu tax a jóg. Mhm. li am fii Amérique Sénégal bi juddu tey fii ñuy wax ak yow ci benn clinique ñu dagg cordon ombilical. Mhm. tey tey tey mu juddu. Mhm. nekkagul murit du xaadir du tiijaan du laayeen du catholique du musulman sénégalais tout court la. nan lay def ba baayam. bu jaaxlee daw baayam ba réew mi nekk baay biologique. yor ko ba am ñaar fukki at ak benn. dana ko jàngal. da koy préparer d' abord ay layet comme ni mu amee fii judd rek réew mi jox la ay layet jox sa yaay carte ay layet mooy valise bi def ay couche ay sànq ay meew biberon bu tollee ci ram mu jàpp mu ja mu utal ko yupp yupp yuppalaan bu tollee ci jàng ñu inscrire ko bu waree faji ñu faj ko jox ko ay yére toppatoo ko réew mi moo lay yore mooy nekk sa baay bu lay fournir de matériel ba nga am ñaar fukki at ak benn mun la nag la ma la defoon ci yow da nga ko da nga da nga commencé liggéey ma koy dagg Sénégal boobu laay rêvé loolu la ma réew bëgg indi ci réew mi voilà pas sénégalu murid yi sénégalu tijaan yi sénégalu xaadir sénégalu laayeen yi ñu ubal réew mi nekk ci ay tappale ku ne di nax sa morom loolu c'est fini mënoo da ko fiy jëlee d' accord Cheikh Thiam mhm. euh, ñu ngi lay jaajëfal jërë ngeen jëf mbokk yi am ñoo ngi cinquante cinq minutes di leen remercier bu baax a baax xam naa comme ni ñu ko waxee danañ ñëwaat fii gën a seq ak moom waxtaan euh, di fàttali mën ngeen ko suivre ci page Facebook am Cheikh Thiam euh, l' ambassadeur n' est ce pas képp ku ko bëgg a suivre foofu day def ay analyses yu am pertinent mu ne yu yu yu yu Euh, vraiment di euh, mu nekkoon seen reporter Seydina Aline Ndiaye New York pour Sénégo TV jërë ngeen jëf macha allah émission bi neex na de